Mati trois pommes waaw moom Amadou Ba lay accusé de traître wala moom lay accusé de corrupteur wala quoi parce que dama ko déglu mu naan tey jii Macky a été trahi ah xool ñooñu moo bëgg joxe nguur gi dem isien yi fil kan ma dugalaat jomaay ci bi isien yi fil ay traître lañu am nañ document yëpp mais ñemewul wax tur nag li ma naan mi kii kan la bëgg a wax ah maam Boy Diaw lay waxal wala Bun Joon ah mais bu mu waxaatee xaayan ko dégg séeréer parce que mi ngi doon gaar waale xamoon ne Amadou Ba la mais dafa dem ba ci biir mu ne fu ñu arrêté euh, Karim Wade war nañu arrêté beneen candidat boo xam ne am na double nationalité moo fi a fusillé comme traître comme lépp mais fa rek am na lu ñu jënd fii ay magistrat xaw ma magistrat xaw ma magistrat xaw ma juge amul lu ma a waxul ah ma a Amadou Ba laa a jàppee moom daal ne mooy traître bi nekk APR moo trahir Macky Sall